asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar rek si Leewtoo TV ah di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen xam nga di wax nekk daal namoon ngeen ñu waaye nag ñoo leen raw ah waaw du mën a ñàkk xam nga rek ngoon la ko tool ñuy mujj ñu nag yéen la xam nga noonu lay demee. di leen bëggee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm à travers la monde fu ngeen mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di bëggee di leen ziar leen wax ne nag ah xaar leen dañuy ñëwaat ci kàttanu suñu borom dañuy ñëwaat parce que nag xam ngeen ne Babacar rek làmb moom loolu lem gu ñu segg la booleek meew day yomba suukar waaw du bëri coow xam nga rek mais temps yi stand bi da ciy baax des fois boo kiiyee ba li yàgg da ngay xaw wàcc tuuti nag xaw a noppal voix bi nii wax pour tendoo yi affaire yi mën a wàccaat nice reposé yooyu du mën a ñàkk quoi mais après dañuy ñëwaat de xam nga yéen a ma gën a xam ci micro bi man Mansour di film yàggay monté ndey kumbay bind ay say bind maanay dawal non du mën a ñàkk day metti làmb cent pour cent ko rax dara loolu mënta ñàkk yéen a xool noonu yéen a ngi gis ak seen bët ndey kumbaa ngu masqué wu de dàq corona ay sa Moussa Niango Nguire yàgg borom liberté 4 célibataire bu mag a mag bi maane séeri naa baa ngongu déggu dindil masque bi maa ngi lay ziar maa ngi dolli ziar temps yi làmb ji dafa bëri maanaam coow dafa commencé waat xam nga Gaston Mbengue moom c'est le donkin de l'arène dikkaat na ci combat yi indi na fi ki Gris Bordeaux Sa Thiès xam nga ay combat yoo xam ne daal combat coow la Reug Reug Tapha Tine coow li mel ni tuleeg man le loo gis ci combat yooyu eh, ay combat neex la parce que Gaston du du nekkul novice waa non taxawal s'il vous plaît waa nga ne <laughs> continue ma ne ay combinaison yu neex la parce que Gaston ku ko xam xam ni yàgg na si làmb ñun si lañ ko fekk donc lépp lu mu taxawal rek ay affiche yoo xam dina yaakaar nañ dina neex amateurs yi donc comme lu ñu wax rek ni na mbër yi wàññi seen seen loxo pour nu mun a ñëw sëgg bëre parce que gis nañu gis ay combat VIP. est-ce que combat yooyu dina dina possible lu mel ni Tapha Tine dañu mel ñu ngi for ci ay woowu buy ne waa Tapha Tine bañ nañu côté Fass tamit dafa mel ni ñoom it ñu ngi bañ boobu combat muy Sa Thiès ak Gris Bordeaux waaw mais lamb loo gis rek innovation la xam nga dana wax combat VIP entre VIP léegi nag Gaston xel lu mu bëgg indi mooy grand contre petit loolu la bëgg indi mais tamit ku nekk tamit am nga sa choix ne du ma bëree ak grand wala du ma bëree ak petit xam nga Tapha Tine considéré na boppam VIP. suñ ko joxee combat day jàpp ne raw na rëg rëg wala rëg rëg fi def defagu fi lu fi def. mais am na choix ne man vraiment Reug Reug VIP laa bëgg bëreel comme que Reug Reug mi ngi tamit di laaj euh, VIP Reug Reug gis nañ ko mu taxaw ne kii laa bëgg bëree Bombardier gis nañ ko mu taxaw mu ne Tapha Tine keneen ak keneen donc Tapha Tine tamit su ko neexee mu ne bëreewuma ak Reug Reug ainsi de suite mm-hmm. waaw comme grand kon petit mooy ñëwaat rek. mooy ñëwaat mooy ñëwaat. yow boo doon defar combinaison tey looy defar. du ma promoteur. en tant que journaliste sportif connaisseur xam nga waaw loolu tamit combat la mais problème. par exemple euh, pourquoi pas Gris Bordeaux ñu ko Sa Thiès Sa Thiès. waaw loolu neex na. ah waaw neex na Balla Gaye. nañ ko jox euh, Boy Niang. Balla Boy Niang. waaw boobu tam neex na ah. neex na wa. ki nga xam ne ni moom mooy Eumeu Sène foo koy yóbbu moom. Eumeu Sène mu nañ ko jox. Euh, kan lañ koy jox si xale yi nañ ko jox rek rek peut-être. am na seen rëg na <laughs> seen guy gi am na ñu koy wax. waaw ba tey neex na ay ñaari ambianceur lañu. ama ak guy gi. waaw bu neex. waaw kii dañ jóg kat la. na kekk day keneen ki day simpi. am ndax neex naa simpi. Ah, neex la gàttaan la. gàttaan baax na. Aïssa ci loolu ne madame ñaa Siri Moussa ñaa Aïssa dëggu da nga amee ne ko tayal di jógal tuuti hmm, ma bàyyi la nga toog. amul muskila kon toogal comme da ngay nàmpal te kuy nàmpal sax moom du bëri du yëngu-yëngoom du bëri. waaw ah, ana paate. paate mi ngi fa. mi si jàmm mi si jàmm. waaye yaa ngi koy nàmpal ci meew original bi. waaw maa koy ay bébé xam ne kin xamu fu meew soow laa la wax. yëpp rek. déet déet nàmp na yaay kañ. Ah. jon yàlla na gudd fan ah, leer yow itam. mais yaayam ci lan mii. nan dama ci bi daal loo ci mën a dégg na nàmp ci meew mii moo koy joxum xel moo koy tax a doon góor mooy tax mu dëgër. maa ngi lay bëggee waat. ñu delloo bëggee bu baax. mu mel ni ci làmb ji fan yi taxaw na yaa ngi dégg ndax coronavirus bi coow li amaat na promoteurs yi ñëw nañ mais yow bi ma lay laaj mooy Tyson 2 ak ki nga xam ne nii mooy Franc combat boobu daa mel ni combat bu làqu la woon de waa Equivox Arena ñëw génne ko waaw Babacar affiche bu neex la waa Equivox tëgg parce que tam boo xoolee ba ci biir Tyson 2 amal ko adversaire jafe na trop trop trop trop ndax nekk na mbër boo xam ne saa bu génnee rek euh, wane li tax ñu war koo mën a yóbbu ci cercle espoir yi parce que bëre lay def te jafe na ngis nit mu xeeb ko ci bëre ne dama koy andil xeex parce que xeex la mu tële na xeex mu ne xaar ma andil ko loolu te bu demee jour ba day am surprise parce que Tyson 2 dina xeex dina bëre kon soo ko joxee franc nekk xale boo xam ne macha allah ñu commencé ba léegi amagul defet day nekk affiche affiche la carrément parce que ñaari mbër yëpp dañuy bëre ku nekk am na lu mu wane tey jii ci mën-mën euh, parce que Franc dafa jéggi lutte avec euh, frappe bi dem si lutte simple wut fa compétition parce que tamit Euh, di xaar frappe rek benn yoon ngay bëri ci année bi bu bëree ba bëri ñaari yoon mu dem wuti compétition ci lutte simple bi di fa bëre tournoi te ku nekk xam na ni bëre tournoi yombul mu nekk loo xam ne ni forgé wu na fa bu baax a baax tey affiche boobu noonu soo ko tegee jafe na nit wax la jiw mooy daan jafe na nit ne la jiw mooy daan ak certitude jafe na torop parce que tamit ku ne xam na ne Tyson deux moom du ñeexum ñebbe te Franc mi itam ah daa mel ni eh, ay mbër lañ donte Tyson 2 moo ko jiitu ci lamb mais am na am na adversaire parce que macha allah euh, Franc am na lu fi fi wane loo xam ne jafe nañ di dindi ko tey di nga doon dem ci combat nga ni diw mii dina daan diw parce que bu contraire bi amee day def surprise mais tey jii combat bi ah man de jafe na moo wax la Babacar diw mooy daan. Gaston Mbengue loo koy dolli. waaw Gaston projet la teg mais projet bi eh, gëm naa ni am na li nga xam ne dina ko gàllankoor parce que boo xoolee ci li mu joxe gum comme combinaison yëpp nit ñaa ci ku nekk ne bugguma diw duma ma jël diw du ma jël diw déjà am na ay yoo xam ne ni ñëw na ci léegi mu andi plan B mais ba tey ci biir plan B bi nee na bombardier euh, rëg-rëg waa kër Eumeu Sène nee na pare woon nañ ak moom ba féete boor di xaar avance pour bare pour bëre ki nga xam ne ni mooy bombardier muy revanche ñoom nee na loolu la waxante woon ak Gaston ba xaar avance kon mu nekk tamit beneen problème bu daal di ñëw ba tey ci super bi mais idée la idée la boo xam ne ni dina delloo làmb nangu place am parce que bëri na tey ñu bëgg bëre ma mënuñu bëre parce que promoteurs yi euh, seen koom-koom demeewul noonu wala réalité lamb bi demee na neneen sponsor amul kon su àndee projet bi idee la mais foog mu xoolaat bu baax combinaison yi pour mu gën a mën a dox nga am loo koy wax. waaw parce sax nee moom Malick Niang li ko wax ci Superclass bi mais bés bu Gaston we dina ko wax li bëgg parce moom nee na beneen combat am la ñu plébiscité que boo seetee tam boobu ba léegi Garga Sa Thiès lañ doon wax. moom nee nag suñ ko woowee dina wax li nga xam ne ni moom la bëgg te li nga xam ne mooy adversaire am dina ko wax ki nga xam ne mooy promoteur bi. Mhm. am na solo kookoy ay sa fay da ciy baax yàgg ngi nii gaa yi ko xamul mooy film mu Cheikh mu Serigne Saliou Mar borom Liberté 4 weer na sant naa la naka jàmm ji. ba am nga jàmm. sant naa bu wér. yaay ne ci ginnaaw caméra yi di filmer des fois di monter gars yi di ma laaj ana yàgg maar yàgg ngi. waaw ah, dëggantaan maa ngoog de. may mm-hmm. filmer léeg-léeg ma dagg monter. Mm-hmm. waaw am na solo. lamb ji yaa ngi ci biir ngay guneeg liberté du ma ne sax doo dund lamb parce que ñëppay dund lamb parce que sénégalais nga waaye bi nga ñëwee nag ci Leewtoo da nga gën a dund lamb lamb ji actuellement ni muy doxee nii yow am nga ci xel mu dama foog ni bettul kenn parce que feebar bi dafa ñëw lépp luy lépp lu doon dox da ko téye te bàyyi fi làmb ji waaw ah, dañuy xanaa dañuy dañuy dañuy sant rek ndax ay dogal la yoo xam ne jógewul ci kenn sunu borom moo moo ko indi foofu la bàyyee ko xam dañuy xaar rek xanaa bu feebar bi wan ñu ginnaaw ñu tàmbalewaat ndax mbir léeg-léeg lii sax day mel ne sunu borom buy buy buy defar day mel ne luy yàq peut-être làmb ji dina jël beneen bon xam am yu bëri yu soppeeku bu ñëwaatee xëy na dina gën a neex ndax ñu ngi ciy dégg temps yi Gaston Mbengue xam nga di promoteur bu mag mu ngi mel ne dafa bëgg relancer waat làmb ji ak ay xam nga ak ay euh, nouveauté waaw tey dinaa laaj tamit ci koo xam ne ku ne xam ne icône la ci làmb di icône ci promoteur muy Luc Nicolaï yàlla teg ci moom natt mu ne ci kaso bi yow en tant que ku bokk ci làmb wala ngi koy ñaan nag ñun ci sunu kàddu yàlla na ko yàlla génne fa mu nekk ñu képp ku ko mérito barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dëggantaan Luc Nicolaï moom xam euh, da promoteur boo xam ne dafa dafa am fu mu féete woon làmb tey nag waaye dogal dalee ci kawam mënuñu lu dul ñaanal ko rek sunu borom teggil ko ko ba mu génnaat delluwaat fi mu nekkoon ndax euh, que ñu wax ko que ñu ñàkk ko bañ wax dina am euh, impact bu muy def ci làmb ji ndax tëgg na fi ay affiche yoo xam ne xam nga euh, jël ay champion xam nga injecté na fi xaalis bu dul jeex ci làmb ji tey nag bu lii xewee mënuñu lu dul ñaan suñu boroom teggil ko nattu bi ba mu ñëwaat ci làmb ji waaw. kontaan ci yow. ci foo jàngee film. ci école bu mag nag laa jàngee. fan école. waaw <laughs> non sub info laa jàngee film waaw. ci li muy def. waaw mën naa wax ni pro laa ci parce que am na lu ma ci xam waaw. jaajëf. Aïssa foo jàngee yow. <laughs> ok maa ngi jàngee fële ci ISIC. Euh, ISIC waaw ci école euh, journalisme boo xam ne ni. Mhm. gën nañ ko xam ci ñoom ay Latif Coulibaly ak ñooñu ñëpp. ok fa nga génne ak am na solo leeral day baax. ko <laughs> foo jàngee yow. fa laa jàngee si école. si ah, école presse foo jàngee. ah si école man nag au départ euh, formation diplôme international la am tourisme international mhm. après ni doon may ay bourse école Cestine ma am si bourse boobu noonu. voilà foofu laa génnee foofu laa amee bourse euh, pour école journalisme voilà am na solo kon internautes yi gaañaa ngi noonu ah loolu mooy Leewtoo li ngeen di dégg Ndeye Coumba Fall Aïssa Faye madame Nia Yaggamar mu Cheikh Béthio Mansour ne ci ginnaaw tey mooy film Babacar ay wax ak yéen lii dafay baax des ñu xam leneen ak ñi leen di jox xabaar yi ñi leen di bindal ak ñi leen di filmal ak ñi leen di waxal parce que nag yaakaar naa li ñu li ñu fi wax ku ne fa nga ah. ISIC ak école bi kii wax du ñu école yu ndaw kon foofu ku fa jàngee yaakaar nañ ne am na lu ne ci yow dégg ngeen li ñu wax ci promoteurs yi li ñu wax ci combat yi mel ni que ñoom it joxe nañ seen xalaat daf ciy baax parce nag ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi mais di ñaan jàmm rek Sénégal yal na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jeex mu gën a naaw jëm ca kaw a kaw a kaw loolu la ñuy ñaan te am nañ ci yàqin muy Gaston Pa Abdou Fall ak Ligue ak Dieye ak Assane ak Fallook ñoom ñëpp Pape Thialis Faye ak Diamond Sport réduction ñoom ñëpp ah waaw ne ñëpp ñëw waaw ak itam Equivox bi ñëw bees yàlla na dal ak jàmm te def lu raw li ñuy xaar ci moom Pape Thialis nag moom tëggan dënd ak sémmiñ la ko def xaw ma lu ko tëree dellu si dolliwaat ca galan ba parce que nag raja cumbel rek boo gis tëgg bu ne am na tulli ñëwal nga tulliwaat gars yi na nañ la ba nga ñëwee la nga indiwoon doyan na waar xaw ma lu xaw nga nag nga reculer waaye ñu ngi lay xaar kon gars yi noonu la demee woon dañuy ñëwaat incha allahu rabbi ci yeneen façon du mën a ñàkk man suur